Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce mardi 19 mars 2024 su ñu jógee dañuy candidat de la majorité présidentielle de la coalition Benno Bokk Amadou Ba 2024 ginnaaw bu mu demee foofu ca Diaroumé ak foofu nga xamante ni mooy Nioro moom ci boppam moo gis ni que ak waa Diaroumé ñoom ñoo def sen choix ci kaw ki nga xamante Amadou Ba ginnaaw bi candidat bi nga xamante indi Diam, candidat buy indi liggéey Moy candidat bi nga indi stabilité du indi fitna du indi sos du indi fen du indi jaxase du indi ñi nga xamante ni maanaam mooy jaxase askanam du indi violence du indi li nga xamante ni appel à l'insurrection muy waa jaarume ginnaaw bi nga xamante ni naaj bu tàng jër foofa ca pakaaw kii nga xamante ni mooy Amadou Ba si la yeewoo maanaam muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2024 ginnaaw bu mu ñëwee juste pour jël li nga xamante ni mooy ay audience def li nga xamante ni cap jaarle ko foofa ca Gambie si la imposé li nga xamante ni mooy benn point de vue jaarle ko ci centre du Sénégal kii di ancien premier ministre du Sénégal amul benn de bo xamanteni mi ngi koy perdre ginnaaw bu mu engagé lii di course bi jaarle ko ci li nga xamanteni ni tey moom la wone en tant que bouclier jaarle ko ci programme am muy ay minute d'arrêt yoo xamanteni ci ay croisement la ko defee foofu ci jaarume ginnaaw bu mu jëlaatee yoonu Nioro bi toutefois si la apprécier li nga xamanteni ni mooy benn forte mobilisation boo xamanteni ci bépp temps la nga xamanteni ñi ngi nekk ci carême maanaam suñu mbokku catholique yi ñun jullit yi ñi nekk suñu weeru koor di ramadan dal di signé benn engagement boo xamanteni amul benn fay teg ci benn détermination détermination boo xamanteni ni amul comme commune mesure boo xamante ni mën nañ ko jaarale ci population locale bi ginnaaw bi nga xamante ni ñoom ñoo engagé wu daal di renforcer lépp loo xamante ni dafa jëm ci politique publique bon noppi d'aller di initier li nga xamante ni cadre plan Sénégal émergent ci par partance Bobu, manam muy de la verte Casamance le candidat Benno Bokk Mom moom ci boppam jël temps daldi apprécier lepp lo xamanteni ni sukkandiku ko ci changement paysage bi ginnaw bu mu donné ben forêt bu dense indi ben luxuriant ba nga xamanteni tay ñu ko défé ay garab yo xamanteni manam suñu gisé feuillage bi dafa tuufi jaar ci ben passage bo xamanteni bu progressif la jaar le ko ci savane bo xamanteni herbacé la jaar la ko ci Saloum mu don li nga environnement bo xamanteni tay lepp maintenir xamanteni nañ ko disputer jaar ci fleuve Casamance ak fleuve Gambie du dara lu li nga xamanteni ni mën na adoucir ben climat dal di baisse lepp lo xamanteni tay ben benn température la indi ko ci ay rayons solaires yo xamanteni lepp lo xamanteni xamante bokk na ci réew mi nga xamanteni tay tey mën nañ jàpp férocité du dara lu li nga xamanteni tay tey mën nañ ko résister jëmele ko ci valoir li nga xamanteni moy ben enfer ginnaw bi nga xamanteni li lii di AB ñu dippé ko Amadou Ba 2024 mom ak ay convoam ñom ñoo préparé wu jëm ci li nga xamanteni moy affronter bépp défi bo xamanteni tay mi ngi dressé wu ci seen karam ginnaw ñi ngi jëm ci ay élection yoo xamante ni tey mën nañu jàpp kenn mënu ko perturber jaar ko ci force chaleur bi nga xamante ni mi ngi koy servir ja jëmale ko ci candidat Benno bi nga xamante ni affirmé war na que li nga xamante ni mooy Nioro dafa war a doon benn pôle de développement bi nga xamante ni dafa war a nekk ci xolu li nga xamante ni mooy réewu Sénégal indi ay innombrable potentialités yoo xamante ni suñ si sukkandikoo lépp loo xamante ni kii di Amadou Ba conclure na ko dañu war a mettre en place benn mécanisme boo xamante ni ci cadre lii lañ koy teg muy intégration jaarle ko ci Gambie ba nepp mettre en valeur lépp lu sukkandiku ci benn atout boo xamante ni dafay bokk ci réew mi comme li nga xamante ni mooy tourisme agriculture muy image yooyu ngeen di gis foofu ca jaarume ginnaaw ginnaaw bi nga xamante ni candidat coalition benn Bokk Yaakaar ci suufu naaj bu tàng population bi dañoo génn jël seen choix def ko ci Amadou Ba ginnaaw bu mu nekkee candidat bi nga xamante ni mooy indi jàmm muy bi nga xamante ni mooy indi liggéey candidat bi nga xamante ni tey mooy indi li nga xamante ni mooy stabilité ca biir réew ma ba tey yamuñu foofu Amadou Ba bu mu continuer li nga xamante ni mooy dixième jour de campagne am jaar foofu ca Nooro dañ ko introniser comme li nga xamante ni mooy cinquième président ku ko def nag du kenn ku dul waa Nioro ñoom ñoo introniser ki nga xamante ni mooy Amadou Ba comme cinquième président de la République ginnaaw bi nga gisee ni lu toll ci fukki fan kii di Amadou Ba mi ngi sillonné bépp localité boo xamante ni mi ngi ci réew mi maanaam suñ ko jaaree à l'est à l'ouest jaarale ko ci nord ba ci sud lépp loo xamante ni daal ay population ñu ngi fa génn nañu massivement daal di communiquer ak ki nga xamante ni mooy président Amadou Ba jaarale ko ci benn effervescence boo xamante ni tey lépp loo xamante ni mën nañ ko rappeler ci caravane bi doon na benn caravane boo xamante ni bu victorieuse la

suñu sukkandikoo ci li nga xamante ni mooy seen véritable rouleau de compresseur dafa jaar ci benn seen politique boo xamante ni suñu sukkandikoo ci fukki at yi ñu génn lépp loo xamante ni illustré na ko dafa jëm ci benn fief boo xamante ni patriarche coalition bi nga xamante ni mooy président Moustapha Niass moom moo ko fa yoroon daal di symboliser li nga xamante ni mooy benn union sacrée jaar la ko ci ay force vive ak lii di coalition ba nga xamante ni kii di ministre Moustapha Ba di Ombor di Nioro ak kii nga xamante ni mooy Serigne Mbaye Thiam ñoom si seen bopp dañu déroulé li nga xamante ni mooy tapis rouge jëmale ko ci ki nga xamanteni moy président Amadou Ba comme li nga xamanteni tay mom moom gis malgré li nga xamanteni moy mooy naaj bu tàng bi ak lepp lo xamanteni ay rayon de soleil la daldi di patiner foofu nga xamanteni moy ñoro di Rip population yi daldi défier lepp lo xamanteni dafa sukkandiku ci rigooru goru koor gi ba nopi ànd ak ñi nga xamanteni moy sen ay mar ak sen nan ba nopi daal di partagé li nga xamanteni moy hospitalité bu légendaire fofu ca Saloum jagleel ko ki nga xamanteni moy candidat majorité présidentielle di Amadou Ba ginnaw buñ ko souhaité la bienvenue ki di Amadou Ba muy Serigne Mbaye Thiam gi nga noppi mo daal di annoncé que li nga xamanteni moy ñoro de Rip ton na ben souf bo xamanteni ni Moustapha Niasse la ba nopi don ki nga xamanteni moy première bi choisir Amadou Ba pour comme mu porter li nga xamanteni moy euh, candidat coalition Benno bokkar au pouvoir au soir du 24 mars 2024 bon noppi daal di ciy teg ki nga xamanteni moy Mustafa Ba di ministre du budget et des finances dal di souhaiter la bienvenue ki nga xamanteni moy mooy xaritam di rakam di président Amadou Ba na lolu Amadou Ba porte vision jëmale ko ci ki nga xamanteni moy président Macky Sall and ci plan Sénégal émergent dal di fàttaliku que lépp lo xamanteni Mustafa Ba def nako fi nga xamanteni moy ci ñoro mu doon ben trio bo xamanteni suñ ko tegee ci sen tank dinañu réussir li nga xamanteni moy plan Sénégal émergent bon noppi daal di clôture discours am le ko ci ki nga xamanteni tay mo wax ni que dafa am confiance jëmele ko ci victoire coalition Benno Bokk Yaakaar au soir du scrutin muy Mamadou Moustapha Ba ginnaw nak bi nga xamanteni jël na parole mom ci bopam di président Amadou Ba cinquième président de la République comme niko nit ñi souhaité niko nit ñi bëggee niko nit ñi yaakaare ak ni ko wonee encore ci li nga xamanteni moy ay démonstration de force jëmele ko ci li nga xamanteni moy engagement ak détermination malgré li nga xamanteni moy mooy koor bi pour dem dajeeg bépp candidat bo xamanteni ni bépp nit bo xamanteni tay yang ci Sénégal mu wuuteeg yenn candidat yoo xamante ni dañu tànn ñi nga xamante ni mooy plateau télévision yi nekk ci seen suufu climatiseur kii di Amadou Ba dafa teg fii climatiseur yi teg fi li nga xamante ni télévision yi teg fi plateau yi daal di dox ci diggante ñi nga xamante ni ñoom ñooy voté au soir du 25 mars 2021 daal di leen remercier ñi nga xamante ni mooy population di Nioro di Rip pour li nga xamante ni mooy jagleel nañ ko ko ci tertu bi nga xamante ni moom la ñuy teertoo buur ba noppi daal di def référence ci ki nga xamante ni mooy président Moustapha Niass di ki nga xamante ni mooy homme fort Kër Madiabel ba noppi

doon benn plié majeur boo xamante ni ci temu campagne yu Amadou Ba la bokk ba noppi daal di xam le ni que daal ñoom du ñu ñi nga xamante ni tey dañuy tâtonner maanaam dañu nek ci ben pôle touristique bo xamanteni ni diggante Gambie la aéroport Kaolack bo xamanteni dañu fuk fa tabax teg fa ay réception yo xamanteni ni la yo xamanteni ni mën na permettre ñu créer ay emplois jaarlé ko ci jeune yi jaarlé ko ci jigéen yi ba nopi dal di suggérer lepp lo xamanteni ni mën na clôturer li di discoursu président Amadou Ba tek ko ci ben copie bo xamanteni plan Sénégal émergent la mu doon ay copie yu bëré yo xamanteni tay suñu sukkandikoo ci connaissance bi nga xamanteni secret bi nga xamanteni ni na ko tay mën nañu jàpp ni que li nga xamanteni tay

comme nous avons dit que même si nous avons gagné 2029, Amadouba a fait un brigade de Mandat pour 2035. Il y que pour connaître cette émergence, il y a 2035 et 2030, nous y a une situation nous a changé les plans, qui que nous devons... ay découverte yoo xamante ni ay richesse yu bees la jëmale ko ci Sénégal ginnaaw li nga xamante ni ñu ngi xaar pétrole di xaar gaz di xaar lépp loo xamante ni dafa jëm ci li nga xamante ni dafay meññeeku jëm ci suñu ay ressources matérielles muy lii nga xamante ni daal Amadou Ba def na ko foofa ca saalum ginnaaw ba mu jaaree Kaolack jaar foofu nga xamante ni mooy jaarume jaar foofa ca Nioro di Rip Amadou Ba taxul mu noppalu gis ngeen ko démb bu une heure matin jotee la wàcce foofa ca Kaffrine mu mel ni tulleeg Mali foo sànni mbàtt mu tàkk population bi daal di génn Abdoulaye Seydou Sow gi nga xamante ni mooy maire localité ba ba noppi daal di koy ki nga xamanteni moy euh, coalition Benno Bokk Yaakaar di parti socialiste ñom ci seen bop ñoo teeru ki nga xamanteni moy Amadou Ba nit ñi fëlee fu nek ñi gis ni ko daal ñëw nañu gëm seen gëm-gëm jox ko ki nga xamanteni moy Amadou Ba luñu xamlé xamle réew mi duñ ko jox ay stagiaire ndax tay stagiaire wessul nga jël ni ko Kaolack nga ne Kaolack ci Dakar la Tamba Kunda ci Sénégal la bok ba nopi jël capitalu Sénégal war ko déplacer yóbbu ko nga xamanteni moy Jigen Ziguinchor ministre yi war a yeewu dem Ziguinchor di liggéeyi ñu jël lépp loo xamante ni teg ko Ziguinchor je crois que ñooñu ay stagiaires lañu donc sénégalais yi nañu xoolaat bu baax kan la ñuy jox kaddu gi bañ nga ko ba sa sëriñ sax bi la tànn def la candidat sooy wax téye micro bi di naan allo allo mel ni ku nekk ci jàng wala ku nekk ci benn conférence religieuse ba moom fi boppam ak ki nga xamante ni mooy Mimi Touré di pur euh, système bi. pire produit système bi nek ci ginnaaw dila la kekkantoo waxatuma nak nag ñi nga xamante ni bokkuñu yow parti donc je crois que ki di Amadou Ba dafa xam bu baax a baax fi muy tek tànkam je crois que sénégalais aussi duñu jël sen rew diko ko dénk ñi nga xamante ay stagiaires lañu ñi nga xamante ils sont assoiffés de li nga xamanteni moy bagn bañ Macky Sall bëgg ki nga xamanteni moy sen candidat remplacer ko ñeneen ñi moy bagn li nga xamanteni moy sen rew ba nga xamanteni ñu bëgg ko teg ci loxo ki nga xamanteni ne stagiaire la pour communiquer sax tout à fait un problème